asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu mbokk yi ñuy faral di seetaan seen euh, télévision CIK TV ñu leen di nuyuwaat bu baax a baax di leen siyaar comme. Euh, ñuy jaajëfal bu baax. tey uh, uh, uh, rek seen conseil pour daayira yi tey Souleymane Dem mi nga xamante Touba moo programme bi di ko doxal macha allah comme ni mu seen daara ji nga bi nag buñ ko jëlee rek teg ko ci loxo la délégué de quartier Abdourahim Li ci tàmbali bi ba ci jeex amaana dina doy ci ñu lim ngir mu andi rek ñi nga ñu ngi ci tante bi ak ñi nga ñu tari yi nga la di tari ci kanam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 كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما حكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من كل صبار شكور وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذا أنجاكم من آل فرعون يسوع يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى صدق الله العظيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بلقى Uh. a ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل عدل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم e من أفعال أرجع البعض ربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم أرسلنا نوحا إلى قومي أنذر قومك من قبل أن يأتي يوم عذاب العالمين قال من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما Russia. توفني مسلما وألحقني بالصالحين صدق الله العظيم ah maa ngi maa ngi maa ngi sàkku ci yéen nag ndax baat bi dafa xaw a bañ nde mbette bi ma am tey il faut ne ci kàddu képp koo xam ne jóge nga sakk na nga ñëw fii maa ngi lay maa ngi lay jërëjëf bu baax yàlla nag moo am fay yàlla na la yàlla fay kontaan naa trop kontaan naa ñi ñëw kontaan naa ci njaatige yi ndax sànq waxoon naa ko ne woon fi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa al jaaru qabla dahri nee na euh, balaa ngay am fi nga dëkkee na nga wut ay njaatige ñu baax dëkk ndoo ñu baax ak dégg yàlla ñun de yu ñëw fii ñëwoon réccu ñu ci dara ndax nit ñu baax lañu fekk si fii kon ñi ak jigéen yi ñëpp xam nañ ne yore ay xale lu mu jafee nit ñi rek ñoo lay muñal pour nga mën a toog kon sant naa leen gërëm naa leen ñuy jóge seen kër yi itam ñëw ba fii ah lu ñu doonee julli tey loolu dafa déggu ci ñoom te koo xam ne ay kilomètre kilomètre la jógee ñëw fii loolu alquran rek moo ko jaral jullit kon yàlla na leen yàlla fay yéen ñi fi teew ñii ñëw ak ñii bëgg a te ñu am kant rek ñoom yëpp yàlla na leen yàlla fay du ñàkk nag مغرم سني امام بي استاذ فاضل داك نيت كو باخ لا كو باخ لا لو ما شاء الله غرم شاب دي كارتي بي موي عبد الرحيم لي غرم ngay leen di wax bismillah bismillah bismillah bismillah maa ngi jéggal moom salaamaaleykum wa rahmatullah leen masawu ci toogaay bi ndax barkala macha allah toogaay bi yàgg na oustaz ñu ngi lay nuyu yàgg Alassane ak waa daara bi ñun ñu sekk daara bi ñëpp ñu ngi lay nuyu di la jaajëfal barkala macha allah Adja Kine Diouf nag dafa yónnee ci yow bu ñu yónnee dañuy sawar parce que dañoo dëkk ak moom jàkkaarloog daara ji gis liggéeyam ak taxawaayam ci daara ji kon bu ñu yónnee ci yow lu jëm ci daara ji ñun dañ ciy sawar Adja Kine nee na mi ngi lay sant bi ngi lay gërëm mi ngi lay ñaanal yàlla gudd fan bu ànd ak wér kàttanu yàlla ak mbaaxam di la ñaanal yàlla daara ji yàlla ko yàlla saxal lawal ko te ku fi nekk rek. yàlla ubbi dina ba mokkal alxuraan ci kàttanu yàlla ak mbaaxam am nañ ci yaakaar na parce que def nañ ni daara ji di doxee bu loolu jàllee man ci sama jëmmoon ak gisal laay waxee ndax tubaarkàlla dama nekk nii jàkkaarloo dëkk ak waa daara ji te nag ñu boole ci biir daara ji ndax man mënuma aw ma mais lu yëngatu ci daara ji dañuy yaakaar ne su ma ñëwul taxaw loolu du sotti kon boole boobu am na solo maa ngi ñaan yàlla yàlla ko yàlla saxal yàggal ko ci kattalu yàlla ak baaxam ajanki ne nee na mi ngi lay jox lu mu xeeb nag barkeelu la rek nee na ñu ñaan yàlla fekk ko ay déwéni déwén te su prochaine édition bi ñu yendoo ko ba ñaam xaaju ko di jot na tubaarkàlla macha allah ku ko fekke woon yàlla na ko fekke waat ci dara jege na bu tedd sallallahu alayhi wa sallam alhamdulilah jaa jaajëfe suñu borom yow mi ñu may ñu fekkee bés bi bés bu rafetee ni bés bu teddee ni bés bu amee yaakaar ni yàlla bu yaakaar tas yal nañ ko àndee dugg àjjana yow suñu borom ñoo ngi lay sant di la gërëm dañuy mayee ci carte bi ñu am bés yoo xam ne bési alxuraan la dañoo ko si njëkkee ko si Oustaz Fall te Tamsir Diallo fulli ko yal ko fi yàlla saxal te tas ko ay daaray daaray daara ba bés bu nekk ñuy tari alxuraan ci suñ koñ bi ndax loolu lañ fi bëgg ndax ku wax sant yàlla koy sant yàlla day fekk nga nekk ci alxuraan nekk ci li alxuraan bëgg bëgg fekk nga bëgg yàlla fekk di topp yàlla di def li yàlla santaane ñoo ngi gërëm di sant waa quartier bi góor jigéen mag ndaw fu waaye mën a nekk ku ñëwoo ku ñëw ko am yéene ak koo xam ne am nga dogal topp topp te ku nekk xam ne sa ngeej ak tey bés bi campagne bi dafa ubbi jëm bi si yoon waaye suñu gën maan ñu ngi koy gërëm ñëpp dalee ko su sas faat nga xam ne sama ñuy door ba léegi loxoom jógu si xalaatam jógu si jëfam jógu si oustaz collectif oustaz yi nga xam ne si suba ñoo fi daje ñoom ñëpp wàcce alxuraan ki ko jiitee oustaz toog ñoo ngi gërëm di sant jigéen ñi quartier bi nga xam ne yàlla xiiru leen lu dul si alxuraan xiiru leen si diine xiiru leen si yàlla yal na ko yàlla nangu ñaan li ñu bëgg si diine yal na ko yàlla def yal na yàlla lawal lii lépp yi nga xam ne tey nag ñoo fi jàng alxuraan yal di ko defal seen i doom seen doom di ko defal seen i doom yal na ko yàlla lawal ba ñu bokk ak ñoom dugg àjjana alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah ñoo ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp rawatina nag dëkkandoon yi nga xam ne ñoo wër oustaz Tamsir Diallo wax dëgg yàlla juróom-ñetti fan a ngi nii yoo xam ne du góor du jigéen du mag du ndaw te aji sell sàll jiite leen maire Sané maire Diouf maire Awa Badiane maire Diop booba tey ku nekk yaa ngi am soxla di laaj fi nekk nii lii fu ñu toll bañ ak si bés bi ñoo ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp jaa ngeen jëf Oustaz Fall jërëjëfati jëf ñëpp képp ku fi taxaw alsaan ñoo ngi lay gërëm sa taxawaay wax dëgg yàlla xol sedd na xale yi ñu leen jox li ñu sa ti yéen ngi si xel daal na fi mu nekk nii dëgg taalibe du yalwaan rek taalibe am na leneen lu nekk si moom muy njàng xale yi ndekkee yalwaan rek neew leen fi woon fu ma dajeeg yéen di bàyyi leen yalwaan gi dem leen jàngi ndekkee yéen a ngi jàng jàngeen jëf wa rahmatullahi taala wa barakaatu euh, kaddu yi nag kàddu yu gàtt lay doon xanaa kaddu di dalal suñu gan yi euh, di dalal suñu gan yi ak invité yi yëpp di dalal suñu yaay yi ñu nekk côté bële mooy jigéen ñi macha allah seen toogaay rafet na suñu yaay yi suñu jigéen ñi ñu ngi leen di sant di leen di gërëm euh, gis nañu seen teewaay di sant di gërëm aussi bépp bépp invité bu fi teew ñu ngi leen di wax bismillah si si quartier di sant yàlla extension di remercier encore oustaz Tafsir Diallo di ko remercier si initiative bu mu def bi lii ñun dañ si kontaan bu baax dañ si kontaan bu baax parce que ñëw fii installé fii si quartier bi di jàngal alxuraan di jàngal suñuy doom di jàngal suñuy jarbaat di jàngal suñuy rak donc loolu vraiment dañ si kontaan di ko vraiment jaajëf di ko wax ni jaajëf Imam Aline Fall ñu ngi lay wax jaajëf ñu ngi lay sant di la gërëm Imam Aline Fall sa taxawaay rafet na. Euh, asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ñu ngi jégalu euh, comme bëgguñu gàttal te comme ni ngeen ko waxee guddi na xanaa di leen di jaajëf di jaar di sunu gan yi yëpp ñu fi jógee fa lay jógee ba si euh, yi ñu ngi leen di jaajëf di leen wax ni bismillah seen koy merci beaucoup. depuis ñu ñëw fii dañu jël rek buggal ñu suñu bopp buggal ñu xale yëpp bugg daara ji. Eh, problème bu am rek ak lu mënta xew rek ñoom ñëpp wax dëgg yàlla dañuy ñëw di jàppale ñu di participer wu di dimbale ko ci daara ji ci lu bari kon nag ñu bañ guddal rek ñu leen di jaajëfal bu baax a baax di leen ñaanal yàlla ah, di leen wax ni képp kuy defal alquran xamal ni yaa ngi def loo xamante ni alquran dina la romb waaw dañu naan yàlla yor na yor ci kaw suuf ñu ne njaboot yàlla yooyu ñan la ñu ne hum ahlul qur'an hum ahlullahi ahlul qur'an ñan ñoo ñu yàlla ci kaw suuf mooy ñi nga xamante ni ñoom ñooy représenté fii yàlla mooy ñi taxaw ci alquran bi guddi ak bëccëg taxaw nag maanaam di ñu koy jàng rek wala di ko jàngal ak ñi nga xamante ne dañuy participé wu di defal ndongo di taxawu si seen problème seen jafe-jafe bu ñu fa indee ndax ñu sedd ak ñoom maanaam li nga xamante ni moom mooy xéewal bi ñoom tamit ci lañ bokk ñoom ñëpp ëllëg yowmal qiyaamati alquran dina leen ràmb xanaa dina ñaanal rek di tënk rek comme ni mu ko waxee euh, imaam Cheikh Tidiane balaa muy dem mu defal ñu ñaan rek ñu tënk bu ko defee ñu yeewee ko incha allahu taala gannaaw yàlla dafa defam te njàng mi set na te njàng mi itamit leer na macha allah te ñu xamante ni parents yi itamit ñuy fexe di bàyyi seen doom yi tamit ñu nekk tamit si daara ndax njàngub diine mënoo ko am si ñetti weer du ne bu école tëjee rek nga jël sa doom yóbbu si daara su école jëlaat sa doom récupéré ko dem yóbbu ko lañ ca français kon li nga xamante ne moom mooy tax xale bi a xam diineem te diine mooy loo xamante ne dina defar àddunaam defar tamit li nga xam moom mooy àllaaxiraam kon nag loolu soo ko bëggee am il faut nga jàng dafa wax ni talabul ilmi sàkku xam-xam xam-xam mahdi ma nga tàmbalee si ba nga juddoo ilal lahdi ba keroog ngay dugg bàmmeel mel Al Quran, njàngum daara meunta yakal Ken, meunta yakal ben xalé li nga xamante mom moy français parce que ñun ñi di wax ak yow je suis trilingue je parle le français je parle l'arabe et je parle encore l'anglais mais loolu yëpp li ma ko may moom mooy que heure bi nga xamante ne war nañoo jàng li nga xamante ne mooy sunu baay dugal nañu ci li nga xamante moom mooy ci daara ba tey ji rëccu gi ci bu fekkee ne jël nga sa doom dugal ko ci li nga xamante moom mooy ci daara naam nga dugal tamit ci mbàllu français bu fekkee ne bi na daara ji doxul am na chance bu fekkee ne daara jox na te français bi doxul tamit am na chance waaye bu ñaar yëpp bokk doxee nag boobaa dafay gën a am chance dafay gën a am tamit li nga kon nañ di bàyyi xale yi ñuy dem ci xamante moom mooy seen diine ndax saa yu demee bay julli bu ñëwee bay julli français dañ koy jël teg ko ne anglais ñu jël ko teg ko ne du ñu làkk beneen làkk bu dul làkku arab waaye duñ tari tamit leneen dul alquran kon na nañ di ñaax njaboot gi ñu ngi sensibiliser parents yi di leen ñaax tamit ngir ñu jël seen doom yóbbu leen ci li nga xam ne mooy si daara macha allah fa tabarakallah dégg ngeen ko euh, kaddu imam yi muy kaddu yu am solo incha allah kon bu ko defee rek euh, ñu teg seen baaraam rek ñu dem euh, xooli keneen incha allah mën a dégtal yéen bi kon ñu noonu leen di jaajëfal bu baax a baax a internet leen di leen di jox ñu leen toppatoo seen euh, seen wér-gu-yaram di leen di jàngal loolu dañuy mën a encourager loolu di ñaax population bi comme ni mu ko waxoon ni sànq rek population bi en général nañu topp nañu jàppale borom daara yi pour ñu mën a vraiment suivre xale yi parce que du jàngale kese du jàngale kese la ñuy def éducation la ñuy def donc képp kuy def éducation di ko def si sa doom si say euh, rakk wala si say jarbaat donc kooku dañ ko mën a rek encourager donc loolu ñu ngi encourager vraiment di ñaax population bi leen jàppale. baax na kon ngi lay jaajëfal bu baax a a baax. kon mu ngi noonu kon euh, délégué délégué délégué de quartier bi ngeen doon teewlu noonu fii ci euh, excitation euh, ci daara Tafsir Diallo Abdourahim Lim mooy Abdourahim Lim délégué délégué de quartier bi a ah, ci lu am solo lool ñu leen di tuubalaat bu baax a baax a baax kon euh, ñu ngi noonu kon ci ba beneen numéro seen émission koy defee saa su ne ngeen ànd ceeg Mame Thierno jaa jëf tamit ma ñëw tam ci jàngat yoo xam ne eh, macha allah ci bi seen bëgg ci alquran ma gis tamit seen taxawaay yéen yi ci boppam gannaaw bu ma a sante gërëm ne seen taxawaay ci réew mi parce que bépp programme boo xam ne bu mën fi law ba nit ñi mën koo xam yeneen journaliste yi koy maanaam yéegal nit ñi yéen a koy jàngal nit ñi yéen a koy génnal nit ñi kon loolu tax ñu ngi leen di sant leen di gërëm te ngeen am liggéey bu rëy liggéey bu rëy ngeen yore ci lislaam yéegal ci bu rëy ngeen ci macha allah umma gi kon ñun dañuy kontaan di leen di ñaanal yàlla yàlla yàlla dëgëral leen yàlla yàlla gën leen barkeel yàlla seen liggéey yokku seen taxawaay sant rek parce que loo xam ne luñ ciy def ci yiw suy génn rek maanaam yenn sabab gi yéen a sabab ah, kenn ku ci nekk ah, taxul ku dul yàlla ak alquran kon muy lu am solo ah, tey nga gis xale yi njàng mu neex mi sedd lool ci xol tey boo doon ñaanal xale yi tey ana nga leen di ñaanal. alhamdulilah. من الجنة اللهم اجعل لنا من كل امر فرجا من كل ضيق مخرجا ومن كل قصر يسرا ومن كل بائسة سترا وعلى كل كتاب اللهم احينا حياة طيبة موصولة بنعم زائدة وبارك اللهم يا مسهل سهل علينا كل امر عسير اللهم يا مسهل سهل علينا كل امر عسير Allahumma ya musa'il ya sa'il alayna kula ahmad Allahumma salli ala sayyidina muhammadin nabi dumi wa ala ahli wa sahbihi wa sallam wa sallimah Allahumma salli ala sayyidina muhammadin salatan takunu lana ala dahi bapan masyuran wa ala a'adaina ijaran wa ala ahli wa sahbihi Allahumma salli ala sayyidina muhammadin al lima uhliqa wal-ghatim lima sabaka nasir al-haqq ilaqih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 Bismillahirrahmanirrahim. لو كنتم تعلمون صدق الله من الشيطان الهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله da بينهما وما تحت السر وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى رعى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس وجدوا على النار هدى فلما أتيها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلعن عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما acca mbokk yi kon ki ngeen di gis ni euh, mooy imaam Cheikh Tidiane si euh, moom nga xam ni euh, wax dëgg yàlla moom mooy jiite fédération daara yi nekk fii ci diwaanu Tëngéej muy lu am solo tey nag mu ñëw fii ci ci bés bu mel nii bésub diine di bésub xam-xam waaye tamit di bésul alxuraan en tant que oustaz tey ban yëg-yëg nga am ci bés mel nii. yëg-yëg biñ ci am mooy sant borom bi tabaaraka wa taala sant yalla xam ne lii bu yaa bu yàggee bu yaatoo rek dina baax te xam nit ñi war nañ te ku ko taxawal ku ko taxawal ci ab dëkk war nañ daal war nañ daal sant xam ne taxawal nga bis boo xam ne dutuñ am ci ni kon tabarakallah na am solo la war di def la di Dakar rek boo allah allah du xool dara du soxla dara lu mal jàng su su nag ku jàng alquran ndax alquran mooy jàng mi li gën ci li ñuy jaa doomu aadamay jàng mooy alquran kon xale bu koy jàng bu mu xool dara bu mu yëg dara bu mu yëg lu may nga xam ne lii kat waxi yàlla la waxi yàlla la moom xale la te mu yàlla baaxee na ko ba mu bokk ci ñi nga xam ne mi ngi mi ngi jàng mi ngi wax mi ngi góorgóorlu ci wax yàlla yi kon fa tabaarakallaahu loolu ngëneel la ci moom loo xam ne lii xën kenn kenn mënu mënu koo fay ay waajuram fa tabaarakallaahu kon xale yi nga xam ne ñoo ci jàng daal ñu ngi leen di encouragé ñu gën a góorgóorlu ci jàng bi jàng alquran bi xam ne lépp lu lu ñu jàng alquran moo ko gën lépp lu ñu jàng alquran moo ko gën fa tabaarakallaahu kon ñu ngi leen di encouragé ñu gën a jàng ñu a góorgóorlu góorgóorlu ci a ci ñoom nga xam ne léegi li lépp loo xam ne li ñu koy def lii ñuy def al ah, jàng alquran ko gën lu ñuy def rek jàng alquran ko lu ñuy liggéey rek jàng alquran moo ko gën fatabarakallaahu mu ngi noonu kàddu yi am na solo kon ñu koy jaajëfal bu baax a baax di leen jaajëfal yéen ñu ngi doon topp ci depuis suba ba léegi ci seen émission ëttu daara yi ah, comme teew ñu leen ko waxee tey ñu ngi fii ci ah, diwaanu Tëngéej ci conférence bi nga xamante ni moom la daara Tafsir Diallo doon def ci lu am solo loolu kon ñu leen di jaajëfal di leen jox beneen numéro beneen numéro kon incha allah wa aaxiru da'waanaa alhamdulillahi rabbil aalamiin asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala